tey nda bi diko sama mom moy mooy ñew pour indi suñu asaka yéene ci ndogu ci su ci ndogu ci wéru koor bi vu que ne ba avant-hier joxe nañ suukaru koor Parcelles Assainies comme ni ma ko waxé won rek euh, bi d'après bi défé suñu lancement suñu première édition euh, suukaru koor la won tay nak dañoo ñëwoon fii nii hôpital régional pour jox accompagnement malade yi sen ndogu parce que nag accompagnement maladie dañuy jóge ci ay zone yu sore sore sore ñëw fii nii parfois da nga fiy gis ñoo xam ne sax duñ fi am benn mbokk am problème pour lekk wala pour naan moo tax ñu ñëw tey pour ñun indi suñu wàll ñun ci biir weeru koor bi indil leen seen ay ndogu tey mouvement Matak la mouvement ànd taxaw askanu Kaolack bi mouvement de travail de solidarité et de fraternité ñoom ñoo ñëw mouvement la boo xam ne ne dafa taxaw pour jàppale askanu gi comme ni ñu ko waxee askanu Kaolack loolu lañ waxoon ci lancement bi le 2 mars ne dinañ jàppale askanu Kaolack def nañ suñ première édition tey mooy suñ deuxième te allah bu ñu wooree am nañ yeneen édition yu ñu war a def ci au niveau de Kaolack tey moom tey ndogu lañ indi fii indi ko accompagnant malade yi nga xam ne ñoo nekk fii nekk ak seen i ak malade yi ñu defar leen ay chandise defaral leen jus seggal leen lañ leen ay café ISAF indil leen pour que bu ñu ndogoo ñu mën a ndogu ci ndogu bu mucc ayib li ñu jëf ko comme ni ma la ko waxee nee naa la ñoom accompagnant jógee ci ay zone yu sore sore sore am na ñoo xam ne dëkkuñu sax Kaolack dañuy jógee ci yeneen dëkk yi ñëw fii nii nekk ay malade fii duñ fi am benn mbokk duñ am ku leen dimbale loolu moo tax man dama dund sax expérience bi ndax semaine passée indi naa fi malade sama rakk nii gis ci am ñoo xam ne dañ fay nekk sonn fi lool wax dëgg yàlla ma gis ay waay defal yàlla ñëw fi indi fi ay ndogu ma ne nag lii moom euh, idée bu rafet la waaw lii moom man dinaa ko def ak sama mouvement bi ma ñëwee laa oto réunion waa mouvement ñu toog partagé ci ñëpp rafetlu ko ñu ànd ci moo tax tey ñu ñëw indi suñu asaka yéene ci ndogu li mouvement bi li nga xam ne moom lañ def vraiment ñu ngi koy rafetlu parce que bii dañ koo soxla ci hôpital bi parce que ni ko soxna si waxee am na ñoo xam ne dëkkuñ fi ay bëkkee dugg Gambie ñu si bëre fii la ñuy ñëw di faju si mais yaakaar naa ne lii nii andi ko fii di ko jàppale ñi nga xam ne ñooy ñu nekk fi ci hôpital bi loolu am na solo trop parce que am na ñoo xam ne amuñu fi bàyyi amuñu fi mbokk amuñu fi leneen euh, dañoo soxla waxtu ndogu dañoo soxla lu ñu ndogu kon nag ku ñëw di leen jàppale ci loola wax dëgg fi yàlla loolu ci jaamu yàlla la bokk surtout ci weeru koor bi loolu vraiment ñu ngi sant suñu soxna si nga xam ne moo ko fi andi parce que jëkkëram fii lay liggéey moom ci boppam am na ci expérience dundee ko fi te wax dëgg yàlla loolu yaakaar naan ñu ngi ko si sant bu baax di ko ci gërëm parce que jëkkëram bi nga xam ne mooy papis bi ko ñëpp xam papis rek ñëpp xam nañ ko fii ci hôpital bi ku baax la ku wax dëgg yàlla ku bëgg njaboot la ku bëgg famille am la moo tax ba soxna si sam bi roy ci loolu gis loolu ñu baax ñu ngi koy def ci hôpital bi ñoo def ci loolu loolu vraiment ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm ci acte bi nga xam ne moom lañ def